bugguma sore ci ay waxam parce que nee naa kooku euh, du référence euh, yaa ngi wax ci 2017 poste yi effectivement euh, apparemment ñoom daanaka moom particulièrement moom jën bu mag boobu bu Macky doon wax mooy nee na moom parcelle dafa daal di da doon da doon napp mu napp fa jën bu mag bu rëy apparemment Amadou Ba moom moo njëkkoon gis jën boobu donc jën boobu daal xaw ma espadon la xaw ma lan la wante daal moo ñu jàmm moom moo ñu jam jam bi mu xaw a waaw jam boobu nag effectivement moo tax gars yi daal di jël juróom-ñaari euh, poste député ou département de Dakar loolu du référence quant à Amadou Ba nee naa Dakar euh, jaaykatu suuf ak warkat mënul yor Dakar su ma baat ci kaw man nee naa man lu may wax su amut. da nga na de. ah su amut Amadou Ba dama ko wax waxaat ko te su ko neexee mu candidat dina continuer di dégg wax jooju. kilifa la ci biir réew mi parce que loolu la yàlla dogal kilifa nag soo koy tuumaal day dem ci procureur nee naa moom moo fi nekkoon directeur général impôt et domaine moom moo fi nekkoon patron wu Taïru Ndiaye bu fi nekkoon directeur cadastre kooku dañ ko jàpp tëj ko ci kaso ndax suuf moom moo ko ilifoon moom bañ koy tëj kooku Taïru njaay boobu boobu ci kaso bi moom dañ ko nommé ministre de finance ministre des finances boobu nag képp kuy laal ci suuf ci réew mi mooy sa dañu dakaar suufam yëpp dañ ko foqati ci euh, ci loxo askan Dakar tey bés bu armeelu Yoff bi feesee wala armeelu Bétani bés bu feesee amatul benn doomu Ndakaaru Njaay bu ñu fiy suul fii bii Dakar parce que lépp lu ñu doon wooye ay réserve foncière jaay nañ ko te Amadou Ba bii loxoom mi ngi ci te mu ngi may dégg tey Amadou Ba moom moo nekkoon ministre des finance ba Khalifa Sall demee ba négocier lu toll ci vingt milliards vingt trois milliards pour emprunt obligataire pour que ñu mën a soppi euh, kanamu ndakaaru bi mu xañ ko askanu Dakar moom budget mairie lan mooy budget mairie mooy ay prévision la da am prévision am fii ay recettes mais rôle dempo du agent ville de Dakar du ñoom e dem di récupérer xaalis bi mais suñu defee suñu budget ñu ne par exemple damay joxe par exemple chaque fois benn entreprise bu mel ni du Dubai Port World ñu ne ko yow danga nga doon par exemple juróom-ñaar wala juróom-ñetti milliards moom Amadou Ba su ko neexee ñu won ko kañ la ko def moom mën na jël loolu juróom-ñaar wala juróom-ñetti milliards yóbbu ko ci un milliard wala ñaari milliards mooy lu ñuy woowee ay dégrèvements fiscaux su ko neexee tamit mën nañ ko comptabiliser la somme de tous les dégrèvements fiscaux ki a eu à faire à à à à l'encontre de la ville de Dakar et qui a impacte sur le budget de la ville de Dakar Ousmane euh, excusez-moi une fois n'est pas une référence pour Dakar. Amadou Ba n'aime pas Dakar. Et je ne pense pas que Amadou Ba soit dakarois. Mais est nekkoo di ko bëgg discréditer sachant que potentiel adversaire bu sérieux la contre yow. pas du tout pas du tout parce que Amadou Ba lan lan ma ëppale xaalis na ma wax fan la ko liggéey. la bokk ci non de ma ñëw rek dama ne lan la ma ëppale xaalis na ma wax fan la ko liggéeyee fonctionnaire multimilliardaire à la kuli al sàcc nga. jàppal benn waaw soo kontaan kontaanee dama ci procureur ñaareel bi du ndono bu jógee ci ndey du ndono bu jógee ci baay foo jëlee sa ay milliards ci fonctionnaire laa wax doo commerçant doo dara doo béykat doo dara foo ko jëlee yow nag munoo jël loo liggéeyul nga jël loo moomul tey nag nga ne man dinaa ñëw ci askan wi dañu xiif dañu mar dañu sonn ma jënd leen damay wax particulièrement ak askanu Ndakaar bës bu Amadou Ba candidat yi fu mu ñëw jël leen xaalisam parce que seen xaalis la wante waa ji du waa ji parce que waa ji bës bu ngeen ko falee di ngeen mere ku leen deful dara.